Moustapha Mbaye ne nga député yi ngeen xam ne ñu nga àndal ba tey yàlla def ñu war a mën a falu ci listu benn bokk yaakaar nga ne bugguloo ñu mel ni député ya woon député ya woon moo di kenn xamul la ñu liggéey fii Sénégal ndaxte seeni nawle yi nekkaloon assemblée nationale ñoo ko wax ne nañu la douzième législature moo di législature bi nga xam ne député yi ci la gën a yaafus yow da nga ne seen député yi tey il faut ñu mën a xam li nga xam ne moom moo leen moom mooy yittewu askan wi yow hmm. yan ngeen am pour mën leen a ñu mën a gestu population bi saa su ne. waaw li ma li ma li ma waxul rek mooy député yowoon sikkaluma leen sikkaluma leen parce que nekk nañ fi ba seen man mandat jeex bon yàlla xam na mais député yi nga xamante ne man bokk naa ci ñi leen tànn bokk naa ci ñi leen mën a imposer pour ñu liggéeyal département Foundiougne parce que département Foundiougne. naxante dafa amatul te boo seetee ni bindoo kilifa yi fa jaar ak ci loxo yi mu mujj nga xam ne liggéey rek moo fa mën jàllale nit ay tur wu rëy jàllale fa nit ay oto bu rafet jàllale wu fa nit ay poos bu bëri xaalis jàllale wu fa nit xam nga la moo fa jàllale nit yëpp nit ñi fa nekk parce que tàmmal lañ leen ko ba pare ku ci mel ni man ak man ak ñu mel ni man tàmmal nañ population bi di wàcc ci ñoom. di waxtaan ak ñoom di leen dimbale seen bëgg-bëgg di xam seen soxla di fekkee seen i ngénte ak seen i dëj ak seen i xew loolu lañ xam xamatul ab député bu nga xamante ne dañuy toog deux mois wala un an duñ la gis léegi dañoo tàmm siyaare bu am autorité toog bokk ko ñoom bu fekkee lañu war a jëf la mu bokk ak ñoom jëf su fekkee lañu war a fekkee la mu bokk ak ñoom fekkee donc ñii ñu fal xam nañ ne loolu mooy réalité yi am ci département Foundiougne ba ñoom mun ñoo bañ a def loolu parce que xam na ne bu ñu ko deful la leen di la leen di xaar xam nañu ko. la leen di xaar mbaa loolu moo dal euh, ki nga xam ne moo doon meeru Sokone. Hmm. ñu won ko gannaaw. est que hmm. loolu mel noonu moo tax gars yi gedd. waaw meeru Sokone waaw peut-être moom daf ci gën a siiw moom rek parce que meeru Sokone la ak meeru Jirnda ak meeru mais li ma lay xamal mooy département Foundiougne képp ku fa àndul ak président Macky Sall loolu woote kenn dul ci wuy si parce que dafa def lu nga xam ne dafa nëbbuwul dafa ne fàng nit ñi di ko gis lu ne fàng kenn du ko jeex président Macky Sall la mu def Foundiougne ku àndul ak moom loo fa bëgg doo ko am maire bi xaw ma dina dina dina démissionné du démissionné mais moom leeroon na ko ne. du gañee wax ma la gañee département fu ñu parce que moom leeroon na ko moo tax bu ma déggee mu ne dina démissionné daf may jaaxal parce que loolu comme am déception moo war a démissionné te maire bi normalement warul am déception ci li ko dal parce que xam na ne euh, responsable yi nekk fu ñu ànd ak président Macky Sall tooguñ di xoole tey tamit moom dañu woon na ministre bi ci loxo te ministre baa ko démissionné pourquoi mu ne day man loolu xaw lu tax mu ne day démissionné mais en tout cas su ëllëgee kenn ku ko fa defit loolu nga fay gis. ministre bi ministre bi moo di Latif Coulibaly. ministre mooy Latif na ko ci loxal bi te teeloon na Latif Coulibaly mu continué moom ba tey Abdou Latif gagné ko te Sokone képp ku nga xam ne responsable nga ci département Foundiougne defoon nga sa loxo foofu ci élection législative yi pour que Abdou Latif am fa ndam parce que ñun. dañoo solidarité parce que Abdou Latif candidat bi ñu tàndoon pour mu nekk député tànnuñ ko ci euh, ci ci groupe am mais terewul dafa jël ay responsabilités pour taxaw ci gannaaw kan nag gannaaw candidat bi ñun tamit ñu jël suñuy responsabilité pour taxaw ci seconde kenn ku ne la nga man nga nga dem def ko fa man def naa fa ay action yoo xamante ne Abdou Latif sax yóbbu ko te rek pour Sokone delloo si ko ci loxol Benno Bokk Yaakaar. daal ku fa bëgg ndam da nga ànd ak Benno Bokk Yaakaar. du jàppalante boobu. looloo taxoon nga daal di jël kàddu. keroog ba euh, keroog ba kon Sokone wax ni dafay démissionné. yaa njëkk wootee woote ne ko bu mu démissionné. voilà ci ëllëg sa. Hmm. gis na nu préfet wu wala sous préfet wu foofu. Ah. ne élection euh, conseil yi du fi am conseil bi nga xam ne dafay entériné pour mu démissionné. Hmm. est-ce que du yow du joxuloo ko loxo jàppalewuloo ko. ah man bëgg moom démissionné parce que vraiment suñu frère la loolu moom dëkk jàmm lañ sax ak moom bon xaw ma woon exactement man ban parti la nekk parce que mosuma ko xam ndax bu ñu ootee Benno Bokk Yaakaar euh, lan moo ko génnee peut-être parce que maire Niassène aussi génnoon na pour dem ànd jeeg ay rëmb. xam ma lan moo leen génnee mais ñoom ñëpp euh, dañ daan ànd ak ñun di liggéey dama yaakaar la woon ci ñoom rek léegi li ma leen di conseillé mooy nañ dellu siwaat Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall parce que président Macky Sall dafa fonk département Foundiougne kon ñun suñu njukkal mooy ñun ñëpp ñu ànd jàppale ko. tey Moustapha Mbaye ku déglu euh, bu ñu demee ay weer ci ginnaaw coow la bare woon na Foundiougne rajo yeeg. responsable yi communication bi bari na ñu doon dégg kaw Moustapha Mbaye kaw Latif Coulibaly te bu ñu la dégloo kàddu yi nga fi war a dal tey yéen ngi jàppalante est que exemple bu mel noonu war nu mën a xalaat gisee ko feneen ak lan moo waral juboo jooju. waaw juboo bi li ko waral mooy ñun ñëpp dañoo bokk ku ñu jàppale muy président Macky Sall avant ñuy du avant ñuy. Euh, investir suñu candidat yi heure bu ñu dajeewaan man ak moom ci cérémonie li muy wax mooy ku président tànn moom lay jàppale man tamit la ma daan wax te gëm ko mooy ku président tànn moo xam ci latif la moo xam fu mu mën a doon moom lay jàppale su ma fa jógee nag leneen lu may def ma da ko defi mais quand président de la république mënu ma nekk ci parti mu taxaw wane bëgg-bëggam te ne lii ku ko def ku ko def génn nga sama parti te man pare bu pour génn parti ma dem ci def leen bi ñu dem mm, ci au conseil bi au conseil au conseil bi bokkul ak lii parce que loolu au conseil bi rek la ciy feeñ mais lu jiitu au conseil bi la boo seetee commune yi nekk Foundiougne yi ci gën a bari yeneen récépissé lañ dem wote gañe ñëw ànd si benn bokk yaakaar ñu ci bëri demeewul demeewul liste bu nga xamante ne mooy liste affaire yaakaar naa ne bu man man rek man kese maa fa demee suma commune liste APR sans ma ànd ak kenn man kese maa doon candidat maire commune yu ci département Foundiougne bu nga xam ne demoo ak benn allié man bi may dem liste affaire kese laa demee woon suma commune soixante huit pour cent ci lañ ma def maire Diagane après bi conseil département ñëwee ñu tànn ma comme candidat ma dem jàll démissionné ci mairie bi jox ko suma frère mais yeneen maire ci des yëpp yi ci gën a bari dañoo demoon ak bi liste gañe seen commune doog a dellu si APR loolu moo tax boo ñëwee ci au conseil bi amuñu problème bi ñu ko defee aussi wane su suñu doole wane na département ba ñoo fa nekk dëggal ko euh, xam naa loolu sax bokk na ci li tax président ne yoon bii ku génn ci législative bi génn nga ci parti dama yaakaar ne loolu ñun way waaye département Foundiougne la ko président adressé parce que vraiment neexu ko woon yónni woon na fa waaye boobu loolu mën na ñàkk. waaw Moustapha Mbaye euh, élection législative yi ñu génn gis na ni moyens yu bari. Hmm. Euh, Benno Bokk Yaakaar amoon na ko. pour assurer communication taxoon ba ñi nga xam ne ñoo doon comité président comité électoraux yi. ak ñi nga xam ne ñoo doon candidats yi pour nu fës ñu gis leen. Hmm. waaye euh, bu ñuy xool ci médias yi média nationaux yi gisuñu pratiquement benn couverture ci yéen li ngeen doon def Foundiougne xanaa da gars leen fàtte woon xanaa. ah en tout man maa doon président comité électoral bu département Foundiougne mais man parti joxuma dara mooy yooyu nga wax dama koy dégg. en tout cas communes yi jox nañ leen te liñ leen jox seen loxo la jaar directement te koo convoqué présidence ñu ñëw ñu jox leen mais comité électoral moom amul benn cër bu nga xamante ne yëkkati nañ ko jox leen ko bu dul li ñu jox mandataire bi mu jox ñu ci ay carburant pour ñu déplacer li ci des lépp suñuy moyen bopp leen ko dox dañ nga doon toppatoo Moustapha Mbaye bu nit ñi daan ñëw ci politique ñi dañ ko def muy liggéey muy ni ko tubaab di waxee ascension sociale tax ñu mën a yokk seeni seeni seeni daraja ak yi am am yow da nga nekk le contraire xaroon dara ci politique lan moo tax ku mel ni yow nekk ci privé nekk ci informel xëy bàyyi lépp te ne damay politique lan moo war lan ngay wër waaw am na lu may wër am solo xëy na gis-gis yi moo ci eggul rek parce que man mm, dama juddoo ci àll bi suma ndey ak suma baay nekk ay kookow di bay sumay jarbaat ak sumay maam ak sumay nijaay ñëpp nekk ci àll bi ñuy root di taal sondal di takk ay saret amul ay yoon mu nekk entrepreneur wër réew mi wër Sénégal yëpp di tabax ay dispensaire di tabax ay hôpital di tabax ay université gis ne man fa ma dëkk am na lu fa war waaye lan moo tax ñii am ko te ñooñu amuñu ko mooy responsable bu nga xamante ne jóg na taxaw foofu pour défendre askanam gisuma ko fa moo tax ma takkaat suma sentir dellu foofu bi fa demee ba bis bu ne suma liggéey day gën a mais bis bu nekk suma suma askan suma xol di gën a neex parce que daan naa gis yoon bu nga xamante ne oh, bu jigéen ñi naan accouché bu ñu leen fa jaaralee bala ñuy egg ci fi maternité ba nekk buñ amul sax dinañ faatu loolu defar nañ ko tey fii may wax ak yow commune bi ma dëkkoon commune bi ma dëkk man dana la man maa gañoon commune bi am robinet fii may wax ak yow tey may na leen trois forages trois forages yi ñu koy gas actuellement ñu ngi koy liggéey su bëlee dëkk bu nekk ci commune boobu ma dëkk tey dootoo root dootoo enu paan dootoo def dara te loolu bu ma ko xoolee eh, amal nga ma njëriñ te yu mel moo tax moom lay wër moo tax ma bàyyi suma bureau fii dem ci àll bi pour que ma def politique mais daw ma pour ma jëlee fa dara li may alokas ne koy dama koy jël boole ko li ñu may fay def ko ci département bi mën naa la wax ne la bu ma falee président conseil département ak tey masuma fayee ko suma salaire mu génn foofu foofu laa koy bàyyi bala may ñëw naa fekk mu ñu séddale ko ci ay ordonnance ba mu ut lu ma ci teg mais nit ku nekk ak li tax ngay liggéey man li tax may liggéey sumay mbokk ci lañ bokk nekk ma fi pour di dund ak suma doom ak suma njaboot dund bu neex continuer donc man loolu suma bëgg-bëgg man suma bëgg-bëgg mooy xeppil suma njaboot suma mbokk yi nekk ci àll bi ba ñu nekk ci condition yu am solo te loolu bokk na ci li tax mu gën a laxasaay ci gannaaw président Macky Sall parce que dama gis mu def ci effort bu am solo ndax PDC dafa régler situation àll bi yëpp bi mu ko génnee mu nekk lu am solo la nga xamante ne gis nañ ci suñu bopp mu gën laxasaayu pour dem seeti ko man su ma jógee département Foundiougne su ma ñëwee suma bureau lay jaar seetiwuma benn amul sax kër responsable seetiwuma kenn dew ma euh, fenn fu nga xamante ne danaa fa dem pour toppatoo suma liggéey bu suma liggéey pare ma dem Foundiougne def suma politique bu jaaxee ma dellu si waat loolu ma ci ma liggéey